맞아요. 맞아요. caatu Colobane ak Biri Sili caatu Colobane ak Biri Sili jàppante ne rungum te xeex caatu Colobane ak Biri Sili xale yi combat xale li moo mu neex buñ tollee taxawaay dañuy ñëw xeex bëre combat xale li moo mu neex combat xale mel ni Bamba ci am muy bëre rek puusante rek ah neex li moo tax combat neex Brésil ak ah, Caatu ah, Colobane lamb xale koy def waay Brésil am nga benn avertissement kooku Alaaji Malick ko arrêté Caatu Colobane Brésil daw la sonko Caatu Colobane tëru Caatu Colobane ak Brésil waaye bi ma xamoon ne daan see film tànk yi meloon ni Elis waaye Brésil bii mbër jaaxal Bamba Thiam la jaaxal Brésil ma xam daan film kat waaw Brésil amoon na amoon blessé na bu baax ba mu dëppee boppam dama jégal firnde la. waay laay la laa. Oh. yàlla na nga am jàmm. saan ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi Biry Sili ak Caatu Kolobaan Biri Sili ak Thiatou Colobane Thiatou Col Biri Sili lonk na ko jaxabal da koy da koy mbot wala da koy mbot wala ah, daan na ko daan na ko yóbbu na ko yóbbu na ko àll sir daan ko Thiatou Colobane daan na ko Thiatou Colobane daan na ko oh xoolal ndeysaan mi ngi conseillé Biri Sili ma ngi koy conseillé ndeysaan mbër ak morom ma mbër ak Thiatou Colobane xoolal mi ni gone Colobane baa ngi noonu oh xoolal ndeysaan mi ngi conseillé Bruce Lee ma ngi koy conseillé ndeysaan mbër ak morom ma mbër ak morom ma saan oh lamba ngi noonu lamba ngi noonu waaye boo jëwaase ak noonu si biir géew gi boo jëwaase ak noonu si biir géew gi ndeysaan boo jëwaase ak noonu si biir am. mais Thiatou Colobane dañoo gis nga dugg géejawaay daan. waaw nga duggaat géejawaay daan. waaw pour la troisième fois nga duggaat daan. waaw ak géejawaay lan mooy seen problème. non ñun ay xale lañ ñun fu ñu dugal ñu dugg fa. ndeysaan ñu ragaluñu fu ñu jëm. Hmm. barke sëñ Touba Mbacke. ana matu matu. loo ko waxoon. matu daa ñëw Colobane moo ko lu neex. Hmm. ma ne ko matu boo boo bu ñëwee fii. yaa indi vaar bi Colobane ne ma waxoon naa la ko. mais dañoo gis adversaire ñëw wóor na sëñ Touba mel ni ku yàkkamti am na benn instant moom jàpp na mais jàppoo mais teewul la ñuy jàng dañoo jàng bëre te dañuy jàng bëre chaque jour. bilaay bëre rek moo ñu ñor. dañuy dugaat géejuwaay pour na. non damay dem rek man damay dem rek. mi dogay rek. Pël